képp ku def vidéo di défendre Wally sa digg lëfal ndey ñun kattanu leen seen lëfal ndey faale booy bi moo fi nekk ndey góor jigéen ñu katt ko ndeyam wax katt leen seen data ndey fële kii góor jigéen bu katt dëjjëwul ndeyam la képp ku def vidéo laa wax de ak ku mënti doon kii konk yéen lan la katt leen seen data ndey kii góor jigéen la dañ ko wax te fii góor jigéen du fi katt ndeyam dox ak ku lu mën a jàppale ku lu mën a faral war a yoral loo mën a yor ñun faale wuñ ndey say menace waale katt ñu loon ndeyam faale ak say menace foo ñu woo la ëppoo ñu ndey xaalis ëppoo ñu ndey mbokk Sénégal lañ dëkk kattal sa data ndey góor jigéen nga sa digg la fal ndey yak ña lay dimbali ñëpp yak ña faral ñëpp seen digg la fal ndey ceebu yàpp nga góor jigéen nga yow fii réew mi suñuy frères ak sœurs dañ fee nekk yow doo leen ndey yàq yow doo leen yàq du yaay leen yàq yow lan lay soxore da ngaa yor dara loo yor góor jigéen la ko jox sa digg la fal ndey ñu frère rek sœur dañu ne ci dëkk bi di dund yow doo leen yàq yow te ñun pare nañ pour joxe ndey suñu bakkan waali foo ñu woo ñu wuyu la ëppoo ñu ndey xaalis ëppoo ñu ndey mbokk Sénégal nga dëkk Sénégal lañ dëkk sa digg la fal ndey yaag ñi dimbali ñëpp xanaa loolu leer na kat yaa fi foor tama dinañ tëggee sa ndey ñaari boor yaa fi foor li tama dinañ tëggee sa ndey ñaari boor bruit ngay bëgg di ko am dinañ may sa ndey bruit nga kat ndayam bàyyi li ngay def góor jigéen nga nga jox ngay ngay démentir yow sa lëfal nday yi la nga ko yéex a def li la nga ko yéex a def te kattul ndayam dëgg ci yow sa ku fi jëlee Abdoulaye Wade di fi waaj jëlee Macky Sall yow da nga ñoo mën a jaaxal kattal sa nday say say papp nekk nañ fi woy ba am lu nekk ci musique kattuñu leen ndayam dëgg ci affaire góor jigéen yow nga ñàpp sa ndey juddu bërki démb di jéem a jaay rëy laamin di jéem jaay garaaw sa